Nah mol dan nan rawante tegal dafa bok si histoire am mën dafa bok ci sen fête kon tay localu Cap Skirring bi bu ñu ba taxawal lu melni wo ci si autorité yëpp ngir ak nu bok nday bok baay feete ke xam nga si jam ak salam si fair play kon lolu man nu ci li way sante len ci gërem len ci wa course gaal tay liñ ci djublu moy jublu gi di gii di kuréelu dafa nek kuréel go xam sen national li ko teggee waalo ba Cap Skirring ba Guinée Bissau ba Espagne xaleelu mool yëpp ngi fi ñun dañu organiser wu dañu organiser xam nga si fànn yëpp boo gisee lii nga xam ne kuréel gu organisé wu la te tefes gu nekk am nañ fa lu mel ni kon lii li si jublu mooy massifier mool yi waxtaan ak mool yi waxtaan ak sunu mbokk mool yi ba nu gën a bàyyi xel seen métier te xam ne mool mool mooy mbokkam nu bokk ndey bokk a bàyyi muy gànjool ak yeneen teer yu nekk fii yëpp nu joxente loxo tey déglu déggante jàppalante bu ko defee Sénégal man jëm si kanam aada ak cosaan moom ku ko wax ku mooy culture lébu lébu moom mën naa ne fu mu dem wax dëgg yàlla seen culture dañ koy wane muy ndawraab bi nag yeneen yi si topp bu nekk xam na loolu dafa baaxoo ak lépp kon nag yu mel noonu bu ñu ñëwee xam nga def ko rek def nañ ko fan ko war a def